أعوذ بالله السميع العليم من سر شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنسيله على بذكر الله تطمئن القلوب وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi nga xamne ne dañuy sétane ci sen bi di haynul madi nek ci bit rew mi wala nek ci bitim rew ak fu way mëna nek ci hadna bi rek ñu ngi lay neyo nuyoo lislaam te muy assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh del siwaat ni ak yeen ci sen yobulu bis bi mu sen 3e parti di si wutu ki nga xamne ne ne mënuñ koy wutu muy al oustaz Abdoul Aziz Mbaye tey nag yóbbalu bis bi mu ngi aju si wàllum tudd yàlla ndax fàttaliku yàlla ay ahadis ak ay ayaat rod na ci yàlla waxoon na yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa na ko wasbir nafsaka mahalla siina yaddahoona rabbahum bil qadaati wal asi yuriduuna wajhahu tënkal sa bopp seet ñi nga xamne ne suba ak ngoon dañuy fàttaliku seen borom diko tuddu nga and ak ñoom yalla waxna ba ne wasakirina laha kasiran wasakirati hadallahu lahum maghfiratan wa ajran asiman ni ñi nga xamne ne tuddu yalla muy ay goor ak ñi tuddu yalla muy ay jigen ñepp yalla garantal na len ak njiggal go xamne ak pay go xamne gu la وساكرين الله كثيرا وساكرات أحد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يلا وخارنا في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب ne da leen tudd yàlla ndax tudd yàlla mooy dalal xol yi yonentu yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallama wax na ci hadis boo xam ne buxaari yu moo ko solo mu ne masalu la si yaskuru rabbahu wala si lam yaskur rabbahu mislal hayyi wal mayit hadis bi Buxaari yi moo ko solo jëlee ko ci Abu musa al Ashari yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na kii fàttaliku yàlla ak ki dut fàttaliku yàlla boo leen doon misaal ñoom ñaar dafa mel ni kii dund la ak ki dee la mel ñoom ñaar kon fàttaliku yàlla lu foor la yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa wax na ne wax na ne afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli laa ilaha illallah li gën ci lépp loo xam ne wax naa ko man ak ñi ma jiitu woon mooy laa ilaha illallah yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne képp koo xam ne sa mujj ak wax mooy laa ilaha illallah kooku garante naa ko aljana kon boo jëlee hadis yi jël ayaat yii loolu nekk na ay dalaa il yoo xam ne nit mën na ci tegtaloo ne tudd yàlla moo ëpp doole ndax alquran sax dafa wax ne wala sikrullaahi akbar nee na tudd yàlla moo ëpp moo gën a màgg lan la gën a màgg dafa ko xasaf taxul la maa ul balaaq dañuy wax ñi ne xasfu mahmoolul musnat yushiru bil humum maanaam mbir la koy mottali boo ko daggee rek dafay tekki na mbir moom mu ëpp doole lépp ndax yalla dafa ne wala sikrullah tudd yalla mu ne akbaru mo gëna mag lu mu gën mu xemle ko fofu tax la maul balaakh ne nañ hasfu mahmulul musnat yusiru bil humum kon ñi ngi ñaax suñu bop di leen ñaax ci beril tudd tudd tudd yalla ndax ngeenel yi li ci ngeenel yi nga xamne nek na si la tuhaddu wala tuhsa kenn mënu ko lim kenn mënu ko tak kon tay li mo donon seen yobulu bisbi xarit seen soppe oustaz Modou Habib Dramé doon leen ko defal lépp lu si jub rek ci yàlla la lu si dëng ci gàtt xam-xam la ak ñàkk fasaa te xam ne néew na kuy wax te doo juum waaye nag niiw na kuy xam ta doo fàtte asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.